barakaatu ñoo ngi fii ci kër sëñ Fallou Fall moom sëñ Aliou Fall Mboor ñu gën koo xam ne sëñ Alaaji bis bi nga xam ne moom boo xam ne nga defal sëñ moom ji Mboor sëñ Aliou Mboor nag yaakaar naa ne ku nga xam ne sa yaakaar sa rafal la ne xam xam nga ndax moom ku nangoon a ndigal la nu ko toppee ay magam ñoo la àndal ba ñu jeex tàkk mu ñibbi si fii ci gi nekk fi sëñ Fallou nekkal fi sëñ Tuubaa ñi ñi ko fa wër itam mooy sëñ mi ak sëñ Fallou mi toog ci barabam bii kon noo ñaan ci barke bu borom bis bii sama borom guddal seen i fan te wéral leen te lu mu fi yéene lu ne sama borom bàyyi leen fan àggaleel ko moom sama borom àggal seen i ci moom mu daal kuy jàng bu ñuy jëm da nga da nga mën da nga mën a da nga mën ndax ak taalibe aku jub aku nangu ak yooyu ci ndigal ak liggéeyal seen Tuubaa dong la fi nekkee woon kon nag ñoo ngi ñaan rek dolli koy ngërëm dolli koy ay leer ak xéewal mboolem ku nekk daarul laaxirat yi maa nga nekk ci jaarante firdawsiya yàlla yàlla nañ seenum romb ci barke seen Tuubaa Seex Faal ñoo ngi ñaan nag suñu waajur wii ñu fekk si nag muy sëñ Fallou Fall miin mu si alaaji ci barke sëñ Fallou Mbàkke turandoom ba na sëñ dimbale yàggal ko lool mënal ko lool ba li mu yéenee liggéeyal waajur mu def ko nu ko kaw jotam barke maam Serigne Fall jërëjëf Fall